yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen nuyoo fii ci jumaay Cheikhul Xadim Cheikh Ahmad Bamba ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee ci diirug weeru koor wi ci ay conférence yu am solo yoo xamante ni mu ngi koy amal fii ci jumaa ji euh, te itam yi fasanti ko ci waxtaankat yi fasanti ko yoo xamante ni saa su nag waxtu ne ñi koy teewe ak ñi nga xam ñoo koy topp ci bitim réew ñu ngi ci jëriñu bu baax baax buñ ci noppee nag dañuy daal di fegu ak gan ñi nga xam ñoom lañ ci dalal fii ci dogukaay bi muy yokk bi ñu ndogu bu noppee nag gan ñi yëkkati kàddu tey jii nag ñu dalal fii waa Ahibahil Khadim euh, nga xamante ni euh, xamees nañ leen ràññees nañ leen bu baax baax seen taxawaay bu am solo bi nga xam ñu koy taxaw ci dëkk bi Eh, rawatina Daaru Xudus nga xamante ni am nañu ak alaqa bu am solo ak daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne waa waxtu ne saa su ne saa bu gisee daayira Muxaddamatul Xidma nga gis leen ci wet gi luñ luñ dugal seen loxo itam ñoom itam ñu ñëw jàpp ci ci ci wet gi loolu nag moo tax ñoom itam ñu bàyyi seen yitte yëpp daal di ñëw ak délégation bu am solo boo xam ne ñëw nañ Euh, teewal fi ñeneen ñi nga xam ñoo fa des euh, fas yéene yëkkati ay kàddu suñu Cheikh Bey moo war a yëkkati kàddu gi ak délégation bi mandal suñu suñu Cheikh ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ci turu suñu Afi nga xam mu jiite euh, daayira bi di leen tatagal bu baax di am mbégte kontaan baax seen bu baax a baax di leen safo bu baax a baax di leen wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa daayira muqaddamatul xidma ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar ci turu sunu jëwriñ sëriñ Moustapha Mbacké Mouhamed nga xam ne tey daayira bii di ahibaul xadim li nusrati diinul qawim moo ko sos ngir fas yéene muy ab toolam boo xam ne di lay liggéeyale sëñ Touba ànd ko ñi nga xam ne moom mooy seen buntu ci sëriñ bi ci turam lañ leen di nuyu waaye nag ki nu yebal fii mooy Serigne baay Serigne Diop Muxtaar ak soxna Maam Bousso Mbacké ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom la Serigne bi teg fii ci Touba section Touba ñu jiite ko ñooñu yebal fii ngir ñu wuyu si seen woote bii nga xam ne ñëpp ko war a si yéen ku ngeen woo rek ak fu mu mën a ne ci àdduna rek war naa wuyu si ndax yéen daayira Muqaddamatul Xidma da ngeen yéen yéenay daayira daayira daayira yi ndax li ngeen woo muy jumaay suñ tubaa ji. ku fi féetewoo ñëpp la war a fonk ñëpp la war a jàpp ndax jumaa ji day béréb boo xam ne murit yëpp ko bokk day loo xam ne mënutoon a ñàkk bëgg sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa kon naaloon suñ borom dikk ko ko mu naal ko doog fi jóge ñëpp war cee jàpp lépp luy jëme jumaa ji kanam murit yëpp ko bokk ñëpp ci war a jàpp yéen da ngeen di da ngeen ne ci béréb boo xam ne ñëpp ngeen fi nekkal lépp lu ngeen jëf fii ci barab bii mbaa ngeen wax ko murit yëpp ngeen ko waxal waaye murit yëpp ngeen ko jëfal moo tax lii ngeen di def murit yëpp ci war a dugal seen loxo yéen lu ngeen jàpp ñëpp ci war a jàppandoo ndax nekkul leen fi kenn sëñ ngeen fi nekkal kon yéen ngeen ne ci barab boo xam ne euh, ba millier la boo xam ne murit yëpp ko bokk daal ñëpp ci war a jàpp waaye ñun rawatina nag ñun waa Daaru Xuddoos ñi nga xam ne tey jumaa ji buñ ko dee wax Cheikh Moustapha tax li mu wax ñi jàng histoire jumaa ji xam nañ ko kon ñun képp ku jàpp ci jumaa ji rek war laa téye bu baax a baax a baax war nañ laa fonk bu baax a baax moo tax nag euh, bi ngeen xewlee lii wax ko jëwriñ ji di bàyyi sëriñ Diop Muxtaar mu tànn délégation bii kii nekk sama loxo ndeyjoor sës ci man mooy sëriñ Modou kan mi nga xam ne moom mooy euh, président sous section bi kii euh, kilifa gi sama loxo càmmooy mooy euh, Serigne Moustapha Dia Kamal Ahibaul Khadim moom mooy secrétaire général section bi kii di Serigne Cheikh Seye mooy mooy itam euh, moom mooy vice euh, mooy mooy adjoint secrétaire général kon ñooñu lañ tànnoon tey jii ngir ñu teew fi a nañoo tànn sax nag mbooloo mu gën a bari waaye dañ ne jotaay bi xat ba ñu tànnee yenn mbooloo yi ñoom fu ñu leen di xaw a recevoir léeg-léeg day xaw a jafe loolu lañ seetlu ci bi daal moo tax ñu yemale délégation bi fii waaye bëggoon nañ mu gën a yaatu bu baax a baax a baax buñ sañoon itam lii ngeen def nun noo koy def lépp luy nuru finance ci liggéey bii ngeen di lii ngeen di daj ci ndogo yi ni ko ci def muy ay millions yu dul jeex buñ sañoon ñun ñii suñu liggéey bii suqaliku bañu suñu koom-koom suqaliku bañ man ba nga xam ne bu ngeen ko soxlaatee nun waa ay Ahibahil Khadim ñooy def lépp yéen a jooju lañ amoon ndax yéen moom sëñ Tuubaa dong ngeen liggéeyal te nun itam sëñ jëwriñ ji nga xam ne mooy sunu jëwriñ mooy suñu kilifa mooy suñu buntu sëñ Tuubaa te sëñ Moussa Mbacke Mouhamed liggéey sëñ Tuubaa dong ko tax a kon bépp barab bu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa mu wóor ko ne fii sëñ Tuubaa dong lañ fay liggéeyal dara du ko ca bañ lépp lu mu bëgg rek dana ko ci def kon tey ji suñu ko sedd na guy ci invitation bi waxtaan wi am na solo yéen a ngi dundal ruu yi dëgg ci xeeti ndogoog yooyu waaye yéen a ngi dundal ruu yi ruu yi dunduk ruu yi nag sax dundal ngeen dundal ruu yi moo gën a yaatu dundal ngeen dundal yaram yi ndax yaram yi ku ñëwal fii ji mën nga cee bañ a jot waaye ruu yi nag na wër ne ñi nekk ci biir jumaa ji di leen déglu ni lim bu néew la bu néew a néew a ci ñi ngeen di dundal ñi ngeen di seeni seen i ruu ñiy teew fii ci barab bi lim bu néew la ci mbooloo mépp nga ci média yi toog di ko déglu man mii benn benn kii rawatuma te gisi leen ma ci jumaa ji te benn rawaguma mel ne at nag bu dul ngant lu wér émission bu ngeen fi def rek programme bu ngeen fi def rek déglu naa ko déglu naa ko te ci YouTube laa koy déglu moo tax ma ne la ñiy déglu ci YouTube moo ëpp ñiy teew fii fuuf kon yéen a ngi dundal ruuy ruuy ñu bëgg yàlla gëm sëñ Tuubaa bëgg xam-xam saqaafa culture neex leen yëpp ñu ngi leen dundal ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi